doomi aadama ndeg yaa ngi am yaa ngi ànd ak jinne ñii yàlla da leen may xam-xami jinne ñii xam-xami ngelaw ñii xam-xami safara ñii xam-xami ndox ñii xam-xami rawaan man dama boole ñetti yépp moo tax ñu ñu ñu am droit jox man man saltigi laa si gox bi ma dëkk hmm. loolu mooy saltigi lii ñëw nga gis hmm. boo ko mënee aar aar ko boo da nga ko war a aar sax obligatoire na te dañ la ko jox hmm. kon déjà man bu ma gisee ne sonk dañ ko tegaat tànk ragal naa ay mbiram loolu ndax ci sama xam-xam li ma woon mooy 2024 Sonko pour mu bokk dina nekk loo xamante ne faw ñu jóg si moom lan moo tax ñuy jóg si moom ba ma gis si waate ñu ne sarax sangam sarax sangam sarax sangam ñu ngi koy ba mu am lu des ba léegi defaguñu ko am na lan la ñuy rey làmmiñ te mënuñu génne seen poste def ko lan la ñuy wax hmm. ba paree ma ñëwaat ne Sonko boo buggee jël réew dafa am nooy mel hmm. dafa am nooy comporté woo dafa am fooy teg sa tànk am na ñuy topp Sonko nii wallahi la azim bugguñu saa bu problème Sonko am nguur gi bu jeexee nii seen seen seen seen seen lépp day jeex ndax mu ngi mel ni da ngay liggéey weer ñu lay fay si mbirum Sonko nii am na ñoo xamante ne mbirum Sonko bu jeexee dootuñ mënatee lekk naan dootuñ ana bu ñu añee duñ reer bu ñu reer duñ ndekki si la ñuy profité di jël alali jàmbur di di tëj ay ana ana problème ak ak yàq yàqal euh, jàmbur léegi osan bi nga toj kan moo ko moom du population Sénégal wala koo xamante ne citoyen la mu def ko fa. dëgg la de ñoo ciy ndugg ana an lan mooy ci leneen ak leneen ñi koy def mooy ñi ñi añ duñu reer bu ñu reeree duñu ndekki ñu ci ëpp ñoom ñoo koy def mais ñu bëgg Sonko dëgg-dëgg ñu ngi toog ak Sonko di koy waxal dëgg. ñooñu ñu nite lan sax. waaw ñooñu dañoo nite xam nañ lan mooy actualité. Mm-hmm. xam nañ lan mooy politique. Mm-hmm. kon déjà Aliou. Mm-hmm. en tout cas li ma la mën a wax de c'est 2024. léegi li ma la wax rek ki ma fi teg bët. nit mënul fexe ba ma sensé sama wax bu léegi moom lay gis sama xam-xam nag saay bu ma wonee ne saay bu ma wonee ne Macky pouvoir am jeexagul fii di jour laay wax Macky Macky directement lay wax Macky du ma def plateau de Macky laay woo ne ko pare nga mais ba nii may wax ak yow wallahi la azim moom laay gis si bopp réew mi ba tey bi may wax ak yow. te loolu neexul dëgg déggoo li ma la wax Macky xam nga yéen a ngi laami laami ndax day bokk wala du bokk ak yooyu noonu ah. man ma waroon leen ne hmm. waxuma leen maa ngi koy door a wax de hmm. ma waxoon leen ne ba léegi ba 2024 moom laa gis ndaxte gisatuma ki nga xamante moo moo yoroon pouvoir bi dem ba pale def discours woon askan bi gannaaw mooy Ousmane Sonko ngir dañ ko teg tànk jamono bi ñu toll nii mu ngi si gudd gu boo setagul mais jamono bi li ma gis Macky rawee ko cent pour cent la ko rawee jamono bu ñu toll nii beneen bi ci topp. moo waaw voilà très bien. Ah, beneen bi topp Alioune ma waxaat leen bi ñuy jëm nii danañ ko puus duñ ko puus mu ngi mel ni Adji Sarr ak Sonko juge bi mooy atte loolu. Mm-hmm. Adji ak Sonko ak juge bi moo koy atte bàyyi naa ko si loxo juge bi même bu ma ko xamee sax du ma ko wax. moo tax doo ko wax non du ma ko wax xam mm-hmm. Sonko waxoon naa leen ne ni ma ko gisee woon si pare ba muy dugg. ba ñu ko ba mu rekkile noonu laa ko gisee lii man maa la ko wax naa nga wax waaw loolu sama gis-gis la loolu juge bu waxoon ne waa ne tëjee sa gémmiñ sax ma ne ko tëjuma ko li ma gis loolu laay wax. c'est que yow ñoom li ñu umpale mooy. Mm-hmm. yow waxoo ni da nga yéene Sonko. déedéet da xool di gis ma xool boobu. maanaam dogaloo da ngay seet. juge bi àtte sa Aliou. juge bi war a àtte nii Sonko nii. Mm-hmm. war a joxe verdict bi le premier. Mm-hmm. bilaay amul yéene pour pour tëj Sonko. waaw amul xool pour tëj Sonko. mais lam jàng signé ko. yoon la loolu la war a def. Mm. yoon lay def. daa am wala allo. yaa ngi dégg kon dèjà jamono bu ñu toll nii moo tax ma ne plateau bu may def hmm. ci xam-xam bokk ci rek man actualité doxuma ci dugguma ci hmm. sama kër gee doy na ma hmm. Aliou boo boo ma bettoon sama kër nit ñi dañu rang ñetti catégorie rang laa fa am gis nga ñii di rey làmmiñ di woote nii di wax ne sëriñ bi xamu dara ñoom ñoom après bu may wàcc plateau bi ñoom ñoo may woo ne ma suba dinaa fa ñëw barke Seexu Tijaan ñoo ci ëpp <laughs> billaahi wallaahi talaay si jiitu sax Diouf mi woote sànq xoolal kooku kooku bu ñëwoon kooku bu ñëwoon am problème ma jàppale ko non baal ko rek waaleykum salaam waaleykum salaam waaw saldungé ñu ngi leen di ziar jaajëf yal na yàlla nangu ziar ñu ngi rafetlu émission bi nag bu baax a baax parce que réew mi moom yi ngeen def doom la réew mi yàlla jërëjëf jërëjëf ndax ndax lu ci mën a xew tamit yu nekk tamit suñu réew nekk rek mm-hmm. wallaahi ñu par Ousmane Sonko nañ ànd ak seen xel te ànd ak dal te xam ne réew mi mm-hmm. neexul ba neex man faral moom Macky Sall waaye neexul ba neex waaye boobu président mm-hmm. soo ko dafa war a mën a xam opposition du président li mu bëgg ak li Macky Sall bëgg seen bëgg-bëgg méngoowul mais ay mbiram tamit na ko teg ci yoon waaw parce que mënoo wootee def sa caravane nga def sa caravane ñu dee fa xaw ma Tamba nga xëy dem fanaan sa hôtel fanaan suba demaat benn caravane. nga continué di ko def kooku dee doo dee dama ci ay mbokk mu ma sa wala sa tey. wala ko wala kooku dee yaa ko waral da ngaa woote. bakkan ak for. dafa for. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dafa ko dafa dem tëri ci hôtel am bu ko ñëwee xëyaat dem xëyaat suba ngi taxaar caravane am dem fa ñu dem loolu ko am. dëgg la. Mm-hmm. wóor bi mën nga wóor waaw bu dee nag lii pexe seytaane yàlla yàlla ñu sa tool ko lépp sa ko ban ci naaw. ñoo ko xëjal nag ñoo ci xëjal seytaane de. ñu ngi dëgg la de maanaam yow mënoo def caravane. Mm-hmm. nit génn àdduna nga continuer di caravane. Mm-hmm. état ñëw jël la. Mm-hmm. yóbbu la sa biir kër ñu naan ay injustice ak nangam wala kadee lan la te kan moo yor responsabilité bi moom mi woote woon caravane bi. xoolal léegi état loolu la doon bañ. xam nga fi mu ne nii boo defoon vidéo léegi ni réew mi am jàmm ñoom ñoo lay saaga. waaw. waaye ñoom lan lañ bëgg lan moo tax nit ñi bëgg leen a ragal wala kenn du ànd ak. non lu lan lu mu lan nag mooy gëm di yàlla. ah di yàlla bañ a xam kan mooy suñu borom. bu ñu demee boo xam am na ñuy wax ne sonko moo sonko moo leen gën a seen ndey ak seen bàyyi man amul benn sëriñ man Baye Niass mooy sama sëriñ yaa ngi dégg Baye Niass kan mooy sëriñam mooy Seexu Tijaan Seexu Tijaan ba sëñ Tuubaa lalee der ba sa géej ga mm-hmm. fekk si na ko foofu mu ne ko bés la mm-hmm. kon sëñ Bamba dafa am wàll si suñu borom mhm. Seexu Tijaan am wàll si suñu borom mhm. wàll yooyu boole maam Mor Anta mhm. maam Fata bokk kon dèjà man du ma tudd ñooñu sax diggante diggante kii la waaw ay mbokk lañu kon dèjà ñooñu man ñooñu gën a ma sama ndey ak sama baay Seydina Mohamed mi tax ñu bind sama ndey ak sama baay moo ma gënal sama ndey ak sama baay ah mais mbindeef bu du Seydina Mohamed gënalu ma sama ndey ak sama baay sëriñ ba dama ko jox cër lam ma àggale si suñu borom. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kon sama ruuxu boobu noonu nga xamante ne sëriñ ba raxas na ko ba mu set. Mm-hmm. jébbal ko loxo suñu borom man sëriñ boobu sax moo ma gënal malaaka yi. waaw yaa ngi dégg ne de malaaka xamul lu ko waxul. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay la ziar. ñu ngi lay ziar boobu tur bi ak fooy wootee. waaw maa a wootee Tamba. Ah, Tamba tur bi naka la. maa tudd Ibrahima. ah. ah? allo. allo oui. waaw da nga koy jaay. da ngay jaay tur bi. non Ibrahima Faye bu ma jaay sama tur. ah ah d'accord ah. <laughs> Ibrahima Faye. Mm. waaw naka lañ koy waxee sax Faye Birame Penda. est-ce que est-ce que est-ce que reer est-ce que est-ce que añ nga. añ nga fa suur. waaw ba suur. yow yow sa lekk boobu noonu nga lekk na xam naa ceeb bi yaa ko jeexal de. ah Diouf ak Faye ay kal la Diouf ak Faye ay kal lañu. <laughs> ay doomi ndey lañ sax. ndeysaan bilaay Sénégal yi nii. li koy li koy waxee. bisimilah. may wax ni. nan mm. dalal xel xam nan dalal xel amul nguur gu dul nguuru yàlla moo du moo ci yàlla. walaay lazim gis nga man. Mm. damaa bokkoon ñu ñu doon pexeel Macky Sall di kat di di pexe ngir moom mu fal. Mm-hmm. ku ne la ku ne la ndajoon boo gëmee ku ne. Mm-hmm. waaye tey. Mm. billaahi dama rëcc li ma ko falee woon. Mm-hmm. billaahi lañ saa dama ko rëcc. parce que gis nga. yonent bi. sallallahu alayhi wa gën fuuf. ba xeex jotee. dafa xeex. ba am lu ñu bëgg. lu mu doon xeex mooy dëgg. mais man ba injustice bi ñu def Sonko moo tax man man man dugg na ci daal affaire. parce que gis nga dañoo xam te dëgg keneen waxul dëgg la ko des. gis nga Sonko képp bu ñu fekk nii képp te dañu bàyyi di wax naan ay saytu yooyu responsabilité bi ñu gis nga moo ni. bu ñu boole kooku mu def karavaanam directement jëm Dakar ban paasul ban paasul dee lu am dañuy am te dëgg. dëgg la te dañu bàyyi mbir bi ñu wës bu police bi xam def ñu armation bi ñu dara ñu wës bu police bi ñu ay nit ñi. ku waxul loolu waxul dëgg. nerf yi déet waay. waaw dama leen dama leen di wax. bu ñu réew mi. billaahi wallaahi wal kitaabi man taal yi ñu ñaaw moo ko gis a doyar pour ñu mën a yàq ko benn neex ngeen ko. xaw ma xaw ci baatin wala. dafa jeex. wala. si baatin la ah. billaahi <laughs> sama doom ndey nga nag mais lépp looy wax bul waxee xol da ngay waxee non xaaral xaaral may ma tuuti rek da ngay waxee te yàlla tax ndaxte ëllëg yàlla dina la laajaat lii nga wax nii te boo ko mënta tontu si kanamam yàlla kenn yàpp ko waaw boo lëggee waaw insha allah rabbi muy am ne nguuri Macky jeex na jeex na foo ko teg foo ko teg waaw mais jàpp nga ne Sonko moom du 2024 du bokk. kan Sonko. waaw. incha allah rabbi dina bokk. ah nu muy bokkee. baax na baax na baax na baax na léegi comme fay na sant. <laughs> te fay ak kaleen am na lu am fay fay man ma sant Diouf. Ah. waaw wallahi la azim li may def xoolal saa bu amee man maa gën a yées sama baay si ñu mu jur. barsaar wallahi la azim. Hmm. barke Seexu Tijaan bi ma yaakaar addina ak alaaxira du deñ du bokk. ah. fay 2024 man maa la ko wax. léegi man ak yow Barcelona ak la man ak yow. man maay Barcelona. bisimilah. ayca baax yal na nga am yal nga am jàmm te dara bu ma dal. amiin waaw. ñu lay jaajëfal <laughs> euh, léegi man bëggoon naa xam affaire yii nii nga teg balaa ñuy jeexal ndax xam naa ñu ngi jëm ci fin bi lii nga teg nii ay bal balteŋ si laa fi gis ak affaire sa. waaw agaguñ si lii Alioune Mbaye. <laughs> ah duñ ci egg. déedéet agaguñ si lii bii mooy bii mooy déréglu saa ma commencé wax si lii dootuma dugal dugati si actualité. Hmm. fi li ma tegloo fii wax naa la ne man waali man ñëwu ñëwuma. man ñëwuma de Sénégal nañu xam ne kii toog fii ñëwul xam nga lan moo tax ñëwuma ba may ñëw damaa denc waali si ginnaaw indi la gannaaw waali loolu ku ko mun ta firi ku ko mun ta firi mun nga ma wax ne Sonko dina bokk 2024 damaa bàyyi waali si ginnaaw indi la sa gannaaw waali hmm. ka ca gannaaw hmm. ci ginnaaw waali lan moo tax ma wax loolu mooy yal na yàlla def ah. li sama mébét ci mm. Sénégal ñépp am jàmm mm-hmm. bakkan bi ñuy lim ne dix-huit la na fa yem hmm? bu demee boo mënu faa yem tamit mm. ndate booy ñaan tamit da ngay ñaan loo xam ne yàlla mën na ko def de mm-hmm. ndate yàlla bu la régalee fii nga ne nga effacé ko mm-hmm. loo ca gis yaa yaa tooñ sa bopp mm. yàlla waxut violence yàlla nee na bu ngeen di bëgg lan mooy seen xeex ak seen guerre du fetel xam nga lan la seen seen seen carte élec électeur ngeen dem ba si ginnaaw mbañ gàcce ga yow ak yàlla carte bala fa nga kay dugal kenn xamu ko foofu mooy foofu mooy fal Sonko foofu mooy fal Macky Sall ak keneen ak keneen ak keneen mhm. ah man de numéro carte bi ma gis Sonko bokk ci 2024 numéro carte bi ma gis mhm. ñu koy sànni si mbañ gàcce mhm. sonk bokk ca gis naa nag gis naa nag plan B. Hmm. plan B. Hmm. plan B bi moom dama ko gis ba mu leer nag nii laa ko gisee démb si guddi laa ko mujjee bu euh, waa yeewi bu nekkul. Euh, kii lay doon. <laughs> kan kan kan Déthié Fall. Khalifa Sall déggoo ne ma Khalifa Sall laa wax mooy plan B plan B Sonko. Déthié Fall jamono bi nii Déthié Fall lépp lu war a wax lu lu koy yàqal ëllëg ñu ko ko bàyyi te xool na xam ne. yàlla yàlla yàlla. yàlla tàccul na ko. alors dama bëggoon dugg ci direct bi waaw. yàlla tàccul na Déthié Fall. Ah. bisimilah. Aïcha sëñ bi ñu ngi lay ziar waaw tur bi ak fooy wootee. salaamaaleykum. Mhm. Ah, Adja na nga def na ma baal tuuti. waaw waaw Aïcha ñu ngi lay ba ñu ngi lay déglu. maa leen di nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf. Saltige eh, Waly may ma tuuti. Mhm. allo. waaw waaw ñu yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy déglu allo yow rek la ñuy déglu yow rek la ñu ngi lay déglu. waaw Serigne bi Mbaye maa ngi lay kilifa gi. maa lay nuyu di kontaanee si sa jotaay. Mhm, macha allah ak euh, peut-être que. Mhm. maa la xaw a gën a féete mag tuuti mais maa ngi lay suivre. Mhm. am nga yar am na tegi. ci say pièces ak si lépp. donc yow war ngay toog si mel ni plateau yi. pour di modérer ak cadre. donc li ma bëgg wax Sénégal. Mm-hmm. li ñu war a ñaan mooy jàmm. Mm-hmm. parce que sëñ Aliou. Mm-hmm. soo seetloo man mii di wax am naa fu ma far. yow mii di wax it am na foo far. wallaahi dëgg la. mais dañu xam ne njaboot bi ñoo ko bokk ñu war a ñaan yàlla jàmm balaa réew mi di xaajaloo. ci la lépp xaj. yàlla bu réew mi xaajaloo. amiin incha yàlla bu réew mi xaajaloo. amiin incha allah du xaaj loolu moom moo tax ñaan fu ñu toll nii ku nekk ak loo mënti jàpp ak loo mënti def sa xol. Mm. jiitaleel Sénégal. Mm. jiitaleel na benn bopp la. dëgg la diine yi ñoo bokk même bu ñu wutee njaboot yi benn la. wallaahi. aada yi ñoo bokk même bu ñu wutee njaboot yi benn la. wallaahi. ñuy ñaan yàlla jàmm. Mm. yàlla kàpp xol yi. ku nekk li ngay ñaan. fekkee ne safaan la su amee du du mucc doo ci mucc man nag ñaan lañu yàlla ñaan yéen ñëpp mucc amiin amiin amiin yàlla jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax ak yow ak say njaboot yëpp ngeen mucc kontaan nañ bu baax macha allah dafa wax lu am solo mooy faral réew mi bañ a faral nit parce que foofu la réew mi toll ñu ne lu mën a xew ñun ñëpp kenn kum ci doon jàmm rek ñu jig parce que sa njaboot mi ngi ci biti yow yaa ngi ci biti te li ñuy def ak li nu bëgg. Mhm. ak ñi fi nekk te bëgg koo jël. Mhm. ñun la ñuy liggéeyal. fi mu ne nii Macky président Macky Sall sunu surga la. Mhm. président Ousmane Sonko sunu surga la. sunu surga la Idrissa Seck sunu surga la. ñu ñooy seen jaatige. léegi nag sa surga dafa am looy teel a installé ci boppam bala mooy bala mooy yéeg parce que day dofloo nit pale day dofloo nit. parce que tey nga ñëw. nga ñëw ñu ni la yow. lii sa loxo la ne. Ah. booy génn dañ lay xàllal. loo bëgg am loolu du bu fekkee da nga bëgg a fal nit na nga jox ko lépp doo ko wax dëgg lu mu def baax na uh-huh. bu dofee dugg day gën a dof de uh-huh. te Pitbull bu dof moom bu màttee du bàyyi te muy dëgg <laughs> ay ja mi ngi yaa ngi woon fu am solo uh-huh. yaa ngi woon am solo ma doon la laaj ci yi nga ne ma mais xam naa ni euh, temps bëgg a dab waaw nga ñu ñëwal ci euh, affaire yi nii ma gis fii nga teg waaw gis nga bale dem si caméraman bi waaw mm-hmm. teng si bale mm-hmm. xam nga li ku ku ku xam xam ne li teng si la mm-hmm. na mën mais amul ngelaw. doo fi amul ngelaw waaw. saay bu ma ko génnee woon. Mhm. ay billet xaalis laa ciy génnee. lan génneel jox ñu yow. Ah, yaa ngi dégg teng si bale. saay bu ma ko tojoon. wala ngeen jox ma ndigal ma toj bee léegi. jaan laa ciy génne. ah déedéet ah, su génnee jaan yow dañuy waxtaan rek waaw dañuy waxtaan euh, addina ñoo ñuy ñoo ñuy déglu. Ah, man képp koo xamante ne man da ngay laami laami preuve. Mm. man damay def preuve. moo tax man bu ma jégalewul mm. du baax jégaleel man faw may jégale ah, faw ma mel ni sëñ Fallou ak Baye Niass mm. faw may jégale yaa ngi dégg mm. lii karnaat bii gis naa sànq ba léegi yaa nga sa ñaan di tëj waaw xam nga tax yéen a ngi gis plateau bi di déglu nit ñi ñuy wax mais man waa Wally man nekkuma fi dégg wax naa la ko léegi nekk ñëwuma waaw loolu da nga wax man jamono fi ñu toll nii maa ngi fa Ousmane Sonko teg tànkam toog maa ngi fa takk der yi toog jàmmaarloo ak population bi pour ñëpp am jàmm ndeysaan sànq ba léegi maa ngi ñaan pour tëj carnat bi mm. te carnat bi ba Seexu Tijaan xëju si population Sénégal billaahi wallahi talaay yoruma jalang nag mais lii ma yor moo raw jalang carnat mm. bii tey tey tey ma wax la benn affaire bu ma bëggoon nga tëj salamiñ bi léegi-léegi ma carnat la ah déet bu ma kaa man boo xam comme maanaam population la ñuy wax. waaw ah, xam naa bu ma bëggoon Alioune Mbaye. Ah. comme exemple Alioune mbay bu ma bu ma weddi woon li may wax nii. ma karnaat ko du jóg si sees bi mu toog. xam nga loolu problème. à moo tax ma ne la gis nga ki njëkk a dugg sax. Mm-hmm. dama ko jégal sama xol bu set. voilà jégal ko rek xamut xamut. Mm-hmm. waaw ko koy jégal. sëñ Fallou da daan wax ne. Mm-hmm. xam-xam xale. am am xale. doole xale. te ñooñu ku muy gën a moytu mooy xale bu am xam-xam ak am am ak doole. Mm-hmm. kon déjà carnat bii. Mm. képp koo xam ne yaa ngi def examen. Mm. di def concours di homme de mm. nit munu fexe saa boo doonoon homme ñu dàq la fa nga nekk sax bu ma ci ñaanee ban ban kan moo la jox papier dàq boobu noonu. ah bu ma ko ci bu ma ci ñaanee ba tëj ko da ngay toog ba ñu jël si la sa biir kër delloowaat la si sa sa place. homme de bu may dégg nag na nga def pour fekk si ma ma.